salaamaaleykum salaamaaleykum ah di leen kébee di leen béggee di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla tawfiix comme ça ah kenn ku nekk am lu gën a gën fëlaw caatu baag la kaw kaw bi forom kar gi Sénégal 4 TV NJ musique reggae man e namoon naa leen Isaay naa béggee waa Sénégal yëpp Isaay waa Ndakaaru Njaay waa Geskaay waa Mbourge di béggee bu baax a baax a baax di leen jaajëfal fépp fan sa caatu maa ngi la maa leen nekk foofu di la jox loxo baay di béggee sama mbokk kaw kaw yëpp yëpp yëpp yëpp di béggee waa Ngombel waa Naafaar waa Annen waa Ndioufène

baax a baax a baax tey nag dama lay andi ay baax di bëggee sama gars yi a xam ne association jeune reggae yi nekk fii nii a quoi Ouz Maria xam nga Pulo gars yi maa di bëggee bu baax a baax a baax parce que reggae nag man maa ko moom maan isa tey andi naa ay baax yu bëri ah isa tey dinaa la jox Alpha Blondy ay son présidentiel dina fa jaar isa dinaa la jox tey kenn Jaafa Koli isa mon pays va mal dina daw fii nii tey dinaa la jox Kimani doomu Bob Marley One Love featuring ah, ak ki ma ne moom doomu boobu mara la isa dinaa la jox tamit Youssou Ndour benn son boo xam ni wan love la wax one love boo ko déggee ku yaay xam ni maanaam benn mbëggeel isa mu ñaa xool nekk benn rek lañ ciy jublu quoi isa dinaa la jox Lucky Dubé Lucky Dubé isa laa xaw ma soo ma ci mbëggeel lay wax pour la 24 février bi xaw ma yéesa Saint Valentin bi pour mooy loolu noonu mais mbëggeel bi rek di wax sa instant wax naa ne boog bi ngeen xam li nga tegal bi nga xamante ni daf lay nga xam noo ci duggee noo ciy génnee c'est ça qui l'amour quoi l'amour c'est vrai mais l'amour c'est faux quoi yëpp ci loolu noonu nag <laughs> ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di kontaan nag ci jàkkaarloowaat ak yéen a ah di bëggee fans théâtre yi nga xam te ñu ngi ci TikTok bi quoi di bëggee Penda Ndiaye forom Baal ah, moom waa Baal la di bëggee waa Baal yëpp yaa nday Ndiaye ñëpp maa ni kii fe bu a baax di leen jaajëfal di bëggee mbay forom Kër Madaro kooku élément caatu maag la ànd nañ ay vaches yu bëri moo daan defal ah, a baax a bu baax a a baax di bëggee Adama Ñaan daf may sànni xeer mais anyway moom tamit sama mbokk ras sala di ko béggee bu baax a baax a baax mbay saw forom forom Bakel aussi maa ngi koy béggee di béggee sama mbokk yi waa Ndiab famille Ndiab famille ok ay mbokk dañuy bokk man caatu maag maa ngi ci biir margale li may dugg du bari ah, doole ma dégg mais man caatu maag maa ngi ci nja famille quoi isa ay mbokk dañuy bokk fu wala mu gisul ak wala mu gisul rek man maa ngi foofu noonu quoi ci loolu noonu en attendant balaa dara di xew rek dama lay dugal benn affaire su ko defee xam nga su ko defee waaw ñu yaara ci loolu noonu quoi muy premier clip bi nga xamante ni Alpha Blondy moo ko def ci élection présidentielle Alpha Blondy waxoon naa ne ko jaar na fi ay yoon yoon Alpha Blondy mooy kan mooy grand rek man grand rastaman bi nga xamante ni way na lépp man isa way na mbëggeel way na god isi wan Alpha Blondy mooy xam nga way naa ay saan yu bëri yu nga xamante ni moom moo ko def quoi sama mu ngi tudd élection présidence élection présidentielle loolu noonu xel yëpp am na fu mu dem Sénégal bëgg dem wu Ndiaye dañ koy taxawal élection élection présidentielle yi Issa mu ñëpp di ko coowaa àdduna bi yëpp Alpha bu di wax la kon reggae wax naa dafa raw dafa gën maan c'est ça qui reggae ah, peace love and harmony rek jàmm ak mbëgg gu sax dàgg Alpha bu doon moom def mooy gaan mu nga xam ne révolutionnaire la wax ñoom dañuy bañ di ngir yër gu ñuur di bañ ngir kaas ngir ku leen not wax naa ko sax am na benn vidéo buy daw jaam fekk yaa ngi am loo bëgg a waxoo ko rek dañoo goo ci njaam fekk am loo bëgg def defoo ko dañoo goo ci njaam ku la abal ay bët nag fu ko neex lay xoolee te ñàkku baadoo dafa war a arrêté pour siin cere buur maam dafa doy kon dañuy ajal yéegi saan boobu dañ ko seetaan pare bu ñëwee ñu commencé ci saan boobu ñu décoté ko risque bu nekkee moo na rek Elzo ma men da ma jox benn saan bu nga xamante ni Alpha Blondy di ma ko def si élection présidentielle ma deuxième yésaay ba ñu koy gisandoo mu nekk clip bu nga xamante ni euh, Alpha Blondy moom moo ko def ci président président kii élection présidentielle quoi yésaay maa ngi jéego nag ak ni mu demee quoi Alpha Blondy mu nekk benn révolutionnaire bu nga xamante ni ñëpp xam nañ ko quoi moom mooy benn africain bi nga xam ne intégré na ci groupe bopp manda ci fin bi quoi moom bokk na foofu quoi Isa foo ko formé quoi Isa moo nekk tamit première kii quoi première révolutionnaire bi nga xamante ni moom règlement la quoi moom Alpha Blondy moom quoi ay vibes sa bëri na quoi xam naa kii émission bi di ñëw dañ Alpha Blondy bu ko defee ñu toj ko dama fi am benn old school bi nga xamante ni yaa nga Isa ñu ko wax Elzo Elzo jam nag wala Elzo bu waaw bu Sen 24 yi sax benn gars mu ngeen old school woon amaana di ngeen xamante mooy loolu noonu moom mooy tojal business bi quoi daf may dimbal sax ci job bi quoi yéen noonu la demee isa ci loolu noonu ci laay béggee ñi nga xam ne ñu ngi escorté wu ci business su caatu maay man di béggee waa NG musique isa foofu noonu sama kaale la di béggee yaa Kumba Kumba bu caatu maayke wala Kumba di ko béggee bu baax a baax Kumba forom Louga wala forom Thiès di béggee doomam bébé Cheikh na di ko wax uh, happy birthday ma ne tuyu bis bu delsi dafa neex bébé Cheikh li ngay am rek laa la mérito gudd fan rek laa la ñaan ma dundal cent ans et que cent onze cent di dëgg Amet Amet moto yow da nga jaay rek mais coo jiwul Amet <laughs> sama moto bi di bëgg waa aana yëpp ah di bëgg nungu di bëgg mafia bi nekk foofu yëpp yëpp di leen jaajëf bu baax a baax di bëgg sama mère la ba yaa ngi ci jaamu suma yaay di bëgg suma ñetti xarit yi Baye Niass eh, suma gaan la ah, Mante Diagne tamit suma leer la eh, Jibril tamit suma suma doom la quoi di leen bëgg baax di bëgg seen yaay Fatou Diagne di wax ni jën suma xol bee ma dem miis mais dama bàyyi ma chaque jour maa ngi xalaat mer ok dégg nga waaye yëpp ñu bëggante pour juste rek na Saint Valentin amaana baax si boobu sax dinañ ci ñëw quoi di bëggee Xadi Njaay bu baax a baax di bëggee Soda forom Dakar war forom Ngombel di bëggee Ismaila Kan forom Kër Mandem di ko jaajëf bu baax a baax Aliou Sow moom élément caatu maay la di ko bëggee bu baax a baax a baax Ngone Baan maa ngi koy bëggee moom tamit rakk la di bëggee waa Njaay yëpp ah, dina wax ni dinaa fa naan saw léegi bu baax a baax di bëggee

du ci waa kay xam nu mu demee di bëggee Mbaye Boy Brown di bëggee Ziza di bëggee Yacine Sarr élément caatu maay law di ko bëgg bu baax dèjà dama la joxaat beneen sant bu nga xamante ni kii moom moo ko def ci régal la ba léegi ah dèjà sant bu nga xamante ni ci régal lay ba léegi ah ok léegi su ko defee wax na la rege moom moo raw te moom moo man man moom moo raw te moom moo man sant bi kii moo ko def euh, Tiken Jaffa Coli moo def sant bi ah. ci Kanja Faakaare moo pays va mal ku ne xam na suñu dëkk neexul baaxul fi ñu toll nii moo pays va mal ci Kanja Faakaare yi xam nañ ko mu nekk grand révolutionnaire bu nga xamante ni boo ñu waxee Bob Marley non comment dire boo boo jógee ci Bob Marley ne Tiken Jah Fakoly dañ ko dafa marqué moom moo woon ouvrez les frontières ouvrez les frontières laissez-nous passer gis nga bu ngay ak a ren gars yi jaar ci gaal gi ñaata nit ñoo ci dee ñu jaar yoonu Yesa la way sound boobu noonu quoi ouvrez les frontières laissez-nous passer mon voyage mon pays va mal te c'est vrai que notre pays va mal Yesa ñu gis nañ loolu noonu quoi Yesa ok wax naa la reggae moo rab moo man quoi Yesa léegi bon di ñaan Sénégal jàmm rek yaa xam di ñaan yaay gën a dal ok affaire bi nag franchement par li am ni ñun man caatu maag ma rafetlu ma ko xam wax naa la buuram moo mën ci réew mais tamit nguur goo gis day jeex Yesa maa ngi seetaan benn gaan benn présidentiel benn président moom Macky Sall sax bëgg de maa ngi gis benn interview avant muy nekk président mu ni euh, ñi nekk président di jaay gaay doole bu ñu seetaan noonu Firawna wala yeneen Moussa dinañ xam ni euh, yàlla moom nu ko neex lay doxalee quoi mais gis nga rek Sénégal nit bu ñuul moom Eh, Youssou Ndour wax na ko nit ku ñuul dafa bëgg nguur nguur dafa neex ok mais di ñaan jàmm rek ah di ñaan jàmm Sénégal yal na yàlla defaraat lépp nekkaat ci bon état ñu am ci ñu nekk ci jàmm ñu firi ci laan ci maan firi ci feneen ci leneen ci keneen maan ok Rizig bu la neexee dañ dugg foofu rek Rizig xool sang bi nga xam te ni Tiken Jah Fakoly moo ko def ci mon mal ah et ça c'est vrai que notre pays va mal Yeza ma ñoo gisandoo maa la waxoon sànq ne da ngay am Tiken Jaffa Quali Tiken Jaffa Quali pays va mal mais malheureusement son boobu noonu élection yi tax sax ak li ni politique bi dañ ko saisir fii ni Sénégal mënutul daw Sénégal kili boobu noonu léegi la ma ri waa risi woo ni ma kili boobu noonu ñu ngi koy xool mais mënul jàllu quoi bon c'est dommage gi nga Sénégal sax noonu parce tamit ku ne xam na ne notre pays va mal quoi mais da nga lay joxaat beneen ticket bu nga xam ne ci loolu lay wax quoi même tam la xam nga parce que reggae moom ci loolu rek lay wax quoi isa reggae moom ci ci ci révolutionnaire rek lay wax quoi isa dinaa la joxaat beneen ticket bi risi léegi dama jox beneen boo nga xam te ni moom lay demee quoi gars yi nañ ko am foofu noonu quoi on va continuer d' abord xam nga léegi ñi nga xamante ni maa ngi message mu ngi ñëw waa TikTok yëpp maa leen di béggee bu baax a baax waa Facebook aussi maa leen di béggee bu baax a baax a baax di leen jaajëfal ok ah, di béggee waa Daaru Salaam yëpp di béggee mafia bi amaat dinaa koy jaajëfal bu baax a baax Khalil Mbeng xaen bu caatu maag a ah, maa ngi koy béggee bu baax a baax moom tamit élément caatu maag la di béggee waa Podor Falen maa ngi koy béggee bu baax a baax Falen from di béggee vie ah, from Kër Madaro di béggee waa ASC Ngomber yëpp yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di béggee Yoro Dieng ah, suma gaan la suma course di ko béggee bu baax a baax moom waa Galan yëpp ah di béggee waa Ngunjaan Siré di leen wax naafiyoo mexe me di béggee sama benn gaan sama noonu la kayfal xaaluka ah yesa oustaz tag mooy ana bil xayri walhamdulillah waaw kuli xaq wala kaana kërër loolu adis ak ah, loolu kenn mënu koo dindi isa sëriñ yàlla jaam yàgg ak a waare ak a manti waaw bu ko defee bu ko <laughs> non sëriñ damay damay waaw waaw ko defee man yow de ci yow laa teg jeexal barki <laughs> yàlla alquran karim eh, di bëggee sëriñ bu baax baax baax di bëggee ma meen MH di ko jaajëfal di bëggee rapport yi nga xam te ne ñoom ay élément caatu maay la ñu ñu ngi escorté wu ci business caatu maay ka di bëggee MH di bëggee liif kaana bu baax a baax di ko bëggee Forom God ah, di bëggee waaya salam di bëggee Linda Bass ah, Meta Blow aussi maa koy bëggee di bëggee next bro farit ah, di ko bëggee bu baax di bëggee crédit chambre neuf jaay rek di ko jaajëf bu baax a baax jaxu maa ngi koy bëggee bu baax a baax Awa Ndiaye sama xarit na mu naara tata ci loo ne gëj nga maa téléphoné wala nga may ma fonde fis wala boog <laughs> eh, mu ngi cool aw Forom Mbour di bëggee liggéey quoi di bëggee sama maam foofu la dëkk sama yaay tamit waa Mbour la Mbour Coose Mbour Kankura Coori di bëggee sama nijaay nekk foofu yëpp kan baaba maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di bëggee Moussa aussi maa ngi koy bëggee aussi maa ngi Binta Kan aussi moom tamit élément caatu maa la Mamen Da euh, big respect di ko jaajëfal bu baax moom tamit ci game bi la ne yesaay borom 401 yesaay di ko jaajëfal bu baax a baax ah, nga am tawfeex sa yaram nga wér nga nekkaat bon rétablissement quoi après nga am jàmm parce que yow da ngaa bokk ci game dañ daal soxla fan rek def nañ bu nice mën mu cool yee di ko bu baax a man ci loolu noonu ci laa joxe benn sant bu nga xamante ni kii ma ni def kii ma ni doom la ci Bob Marley mu nekk benn gaal bu nga xamante ni ah, comme par ki ne laa tipo quoi flow bi ci jab bi ci preg bi xam nga mais son boobu nag dafa ànd benn film bu nga xamante wan euh, loof la tudd quoi mais si moo ba suivre ko mu ngi wax ni xeet yi dañoo war a film boo ko suivre quoi parce que foofu Babylone euh, chrétiens yi quoi ak ak waa ak seen nekk du neex quoi dañu mën a takkante dañu mën a demalante malheureusement mu am benn booy bu am ci ci bi ci sœur bi la nekk day way wayu sœur yooyu quoi musique yooyu ki ma ni bëggante ak moom ci benn concours bu ñu daje woon nag loolu coow miti bu garaaw quoi léegi sang boobu mu tudd One Love sang boobu ba mara way na ko One Love yesa Youssou Ndour tamit waaye na sang bi dama la ko joxaare pour xam nga ñu xàccandoo ñu dóorandoo africa ñu jokkoo ñu jokkoo te bennoo xàccandoo de dóorandoo amul kii amul kee amul weex amul ñu du joolaa du séeréer du bambara du tukulóor lépp benn tout couleur naaf yow mexee mais ane suu ane soxoma amoxom mbar jaam ngaam yàqali baas yàqal xeex kon jaam rek laay toppan ah. yëpp noonu la demee pour juste rek ñu booloo quoi saan bopp ci loolu la yox quoi wan loof boobu noonu moo tax Baaba Maal wayaat na ko Youssou Ndour wayaat na ko ki mani way na ko def nañ ci ay film yu bëri pour juste rek traduire business bi mu nekk lu naa ki mani moomu nag ah, benn révolutionnaire bu nga xamante ni moom ku ne xam na ko ci jamey quoi moom jantal gaan la yétaay man moom franchement man doom bi mare ay am na ay kii sigi marle am na fa xam nga gars yëpp ñu ngi fa mais man kii ma ne man mooy sama xam nga man moom la tippoo quoi franchement yétaay su ko defee euh, ñu xool saan boobu noonu saan mu ngi tudd one love one love yétaay one love bu ko one mooy benn loof mooy mbëggeel kon kay mbëgg ci kenn rek wala benn mbëggeel risque nekkee moon na rek ñu dem yéen man ñu bu nga xam ne kay man yi moom moo ko def doom bopp ma ne quoi ok loolu noonu boo gisee business ko seetaanee nga sibir saan bi saan bi film bu gudd la na deux heures de temps quoi moo ci nekk saan bi quoi yéen loolu li muy décortiquer maanaam hmm, gel bi ci église bi la nekk bon doomu boos yi comme par exemple doomu boos yi waa almadi ak ñun waa ñànk tangi ak waa gétoo gi musique reggae yëpp ay musique mbedd la musique gu kora yooyu nag ay musique kii la quoi musique gu noble la quoi isa léegi ñoom ñaar ñooyu nag Ah, bon daaw ñoon bokk quoi te mbëggeel xamul âge xamul xeet xamul dara quoi yisaay loolu moo tax ñu def boobu noonu quoi te seen papa moo ko njëkk a bët bëy rëy boobu mar lay <laughs> na respect yisaay moom moo njëkk a way loolu léegi ki mel film ci loolu noonu ponkal yu bëri wayaat ci nañ ci ay Youssou Ndour yooyu noonu quoi bu wax nañ l'amour amul âge man mii tamit xam nga am naa ku ku nekk am na ku ma mbëggeel bu valable la jox mbëggeel bu nga xam te ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp quoi isa moom loolu la jox quoi yëpp ci loolu noonu noonu ci laay continuer nag di béggewaat ñi nga xam te ne ay élément caatu maa ngi lañ ah, soxna Fatou di ko wax happy birthday mën to you j'espère que tardé naa ah, happy birthday mën to you bis bi dellu si dafa neex li nga am da nga ko mérito man caat gudd fan rek laa lay ñaanal forom Touba wala forom Mbour dundal cent ans rak cent onze cent cent ordonnance di bégge waa Kër Ma Diop Samb di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen wax ni man caatu maa dinaa ñëw foofu incha allah la 18 yow bon dinaa ñëw foofu bu neex yàlla nday ba di bëggee ñoom ñëpp ah dinañ bu baax di bëggee Dabi di bëggee Falen forom forom ah, di bëggee waa Podor yëpp di leen jaajëfal ah, Boursin ma meen suma jantal grand forom Arthies di ko bëggee di bëggee monsieur son excellence monsieur le président AB forom Arthies di bëggee Nogay forom Kër Ndiaye loo di ko jaajëfal bu baax di bëggee mayonnaise sama benn booy weer jakataara bi dafa neex <laughs> mayonnaise di ko jaajëfal bu baax a a baax Ameth Diagne aussi maa ngi koy bëggee moom tamit sama goro la di ko bëggee bu baax di bëggee kaw kaw bon kaw kaw pire grand rappeur la bu def ay sound yu naas mais xamatuma ci loo ne dama la gis nga essayé ay lii la mais bon dégguma sa benn track a kaw kaw man caar maa laaj yow ci lan ne man sa fans la dama lay topp sa sound yu dóob na naas na quoi di bëggee Pape Hann forom anen di ko jaajëf bu baax a ba a baax a ba a baax a ba ala ñaa son excellence maa ngi koy bëggee a baax a baax di bëggee borom daaru di bëggee Fatou Thiam à euh, Sagar Ndiaye maa ngi bu baax a baax a baax di bëggee Abay Abdou Souley Dieng from Thiénaba dégg waa Thiénaba yëpp sëñ As maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar sëñ Modou Roxee baax a baax di ziar Modou a baax ma jaañ saw tamit maa ngi koy bëggee di dollar di bëggee waa CM Thiénaba yëpp képp koo xam ne yaa ngi odo saak rek man caatu maak maa lay bëggee surtout maa CM yi nekk ci àll bi damay romb ñuy dox CM nooto dañuy romb ñu taxaw di SOB xam nga ñu dëkk Kër Sa Daaru Faam ñu dëkk Babaak Tatir ñëpp xam nga yóbbu quoi mais bon ça va allah dina baax ah, segam li ñu romb raw safara rek li ci des maan got na ci sotti safara fi tara rek mooy loolu noonu di bëgg waa Ndiréen aussi ah, am naa benn xarit bu jigéen ah, fàtt naa mais di bëgg waa Ndiréen waa Kër Madar aussi maa di bëggee bu baax a baax a baax dafa ñaan da nga maa bàyyi mais sa bopp <laughs> ok noonu la demee saa di bëggee waa Kaolack di leen jaajëf bu baax ki man caat maa lay ziar bu baax a baax di bëgge sa yaay asu di bëgge waa Kaolack yëpp ah di leen ziara waala di dem ba Medina Baye ah, di leen ziara parce que tamit ñun ay élément Braham lañ quoi ñas point isa di bëgge Baye maa ngay njegeen sama sëriñ waa kër Seyim Ndoo yëpp maa koy bëgge bu baax a baax di ko ziar di ziar Cheikh Ould Khari ah, from Mauritanie di ko ziar bu baax a baax a baax di bëgge Lamine Russi ah, from Thiès TV wala foo mu tuma Lamine ci loo nekk quoi maa ngi koy bëgge bu baax a baax a baax a baax ok man léegi dama la joxaat beneen sant bu nga xamante ni sànq one love laa la wax one love boobu wax naa la tey dama am na benn gaan old school ñu koy elzo <laughs> ñaar émission la su ma kalee rek vraiment dañuy tegaat mais muy cool franchement moo xam-xam dafa wóor bàyyi culture générale la booy manqué yi te loolu dafa war a am old school li rek la ñu rawee du leneen seen ngëm-ngëm bii dañ doon def noon di jaar di dem ci concert yi ba tekk ci dañu am culture générale culture générale boobu noonu dafa xaw a jafe quoi comprendre nga Mamadou Sy son excellence président ASC Ngombel maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax ah, di ko jaajëfal isa di bégee Pape Ndaw wala Morlo ah, Gelawaar aussi maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax di ko jaajëfal culture générale boo ko amee daf lay permettre nga xam musique musique duru ay lu ni nga ko gisee nii loolu histoire bu nga xamante ni dafa xam bëri làmboo xam-xam bu rëy eh, gars yi horoscope lépp loo dugg dañ ciy am benn part de dañ ciy xam lu bëri quoi a léegi loolu moo nekk business bi quoi mais bon ça va quoi di bëgg nday mati bu baax a baax ak Seexam Xalil eh, di leen jaajëfal maam sant bi ma la joxaan nag kii moo ko def eh, Youssou Ndour ci One Love wax naa ñu booloo rek bàyyi One Love boobu noonu mooy bi wax naa ko pour doomu baadoola bi ak doomu buur bi ñu mën a nekk ci jaamu ñu mën a bokk école ñu mën a déggante ñu mën a mbëgg fekk la mbëggeel dëggul fenn ah, naa yaakaar naa xaw wala waaw man benn bis dama gis sax benn miss bu lees piis ñu piis noo tudd mun ma Lisa ñu ba xam la fa xew-xew ba yee <laughs> xam nga Lisa c'est ça que l'amour man Lisa pour mbëggeel dëggu fenn Djiby Touré tamit yow xam nga da ngay di ko bëgg ba ba asar ngom mi ngay kaa <laughs> ok léegi sama boobu Youssou Ndour ku nekk xam na ko mu nekk ambassadeur Afrique du moins sax Sénégal mu nekk koo xam te ni man dem naa ay réew yu bëri yoo xam te ne ma xam foofu Youssou Ndour rek la ñu xam mu nekk benn star bu sa business quoi liggéey na ci réew mi quoi a Bob Marley boobu Youssou Ndour da ko wayaat One Love mu way ko way bu rafet bu mucc ayib pour juste rek One Love boo ko déggee mooy boole mu wax sama yantal no peace love and harmony ak lan xam nga yaay ak fën si comprendre nga muy jaam ak mbëggeel ak divertise wu bu sax dàgg quoi jàmm ak mbëggeel ak xam nga est-ce ko harmoniser quoi wu mooy peace love and harmony ñu harmoniser wu quoi ita ñu divertise wu ko xam nga xam nga bëggee jaar sa for life man mais muy cool ita xam nga noonu la quoi léegi pour juste rek ñu nekk ci loolu noonu quoi xam nga moo loolu noonu quoi di bëggee waat Kumba mu may envoyé message ni ma oui ça va Kumba namu naa la de maa ngi def émission mais sama xel mu ngi ci lo mais loolu la ko yàlla dogalee si acceptement ok léegi wax naa la bon. Mm, waaw ñu bëggante rek nañ tàppe xol yi maam da baax doon na ko ñu tàppe xol rek ok ñu bëggante Sénégal mooy sama réew maan isa bëgg naa maa ngi xam maa ngi taalal sama loxo maan di ñaan ci barke Baay Ñas Seex Ulooy Xayri Sénégal doon dëkk bu aéré ñu dëkk di foo ak ree rek laa bëgg yàlla xam na la yaa na jaam yaaga président bu nekkee li nga mesure bi nga jël dafa dafa dafa fragile jox nit kese nga delloo ginnaaw mu sedd xaw ñu ñu waxtaanee ko quoi fexe mun naa sek ñu nekkaat ci euh, isa man ok ñi ñoo ko mu nekk saan boobu nga xam ne suñu père moom ma ko def suñu papa suñu nijaay wan loo wax naa ko rek ci kii bu nga comme moom kenn dooru ko présenté Sénégal wala Afrique quoi isa moo loolu noonu wala sax ci monde bi quoi isa waaw de bëggewaat ñi nga xam te ñu ngi escorté wu ci business caatu maag ba tey parce que tamit xam nga euh, peccum jéeg bu neexee nday ji moo jàpp ci mbagg yi quoi xam nga isa léegi amaana fii la te ñu ko Elzo man isa forum forum seen rek la ñu woon de ñëw Dakar tooñ sonal ñëpp dali bi tamit mbokk daal bi nga mais tamit sonal na ko waa Roycaay waa Pikine de xam nga <laughs> sonal nga xumaan dali bi son waar fii fias may amuñu jaamu rapa joo mooy loolu bon nee na mascarade bi noonu na ko benn lettre palanteeru walanteeru da ngeen a wante sa waa dafa wanteeru woon el so waa <laughs> waa gis <laughs> ok noonu la demee Isa da di di ko di bu baax am tamit mu ni dafa war dafa ñëw palanteer woo moo jantal gars yooyu noonu ah, di ko bëggee wa school yooyu moom moo ci jàpp franchement business yi moo koy décortiquer man ak moom ñaari émission la su ma posé rek ñu yaata ci va si xam nga waaw mooy loolu quoi j'aime ça quoi man dama bëgg ay grand yu nga am xam-xam quoi wala sax grand mais nit bu am xam-xam quoi su genre domaine yooyu noonu dafa am solo su ko defee di nga mën a dund ak ñëpp boo gisee doo xam sax quoi isa parce que dafa dafa dafa dafa dafa diplomate bu nga xamante ni waaw mooy loolu noonu boo ko xamul da nga yaakaar dara nekku ci bopp mais ma ko xoolee laa xam ne kii old school la bareetuñ ci réew mi <laughs> mënatuñ cent personnes mu ne noonu dajale xaj ñu ci car rapide ok ah, di ko béggee bu baax a baax a baax dégg sama oustaz yaa oustaz maa ngi ziar bu baax a baax a baax ak akamar baax a baax a baax bu ko defee ah ah oustaz damay <laughs> sëriñ <laughs> la erta la dëkk xam ngeen ko mooy booy jànkat bi jaay pereg la barki alxuraanu karim yow kii du yomb barki alxuraanu karim di bëgg waa structure bi yëpp ah structure Sen 24 TV yëpp Sen 24 TV events ah yesa NJ family NJ events NJ musique NJ yëpp yëpp yëpp man caat maa leen di kiifee bu baax a baax di leen jaajëfal franchement waa caméraman yi caméra woomeen yi ñoom ñëpp maa leen di bëggee bu baax a baax a baax franchement mu nekk business bu naat quoi fii dañuy kaf di ree boo ñëwee da ngay firi comme ni nga ko waxee firi ci laan firi ci maan ay firi ci faran ci leneen ci keneen maan boo bëggee jooy da ngay tooñ ko la mën boo bëggee misère da ngay nopp ko la mën mais boo bëggee bëggee da ngay consommer caat maa parce que damaa neex xale yeeg wax ba ok <laughs> ci loolu noonu ci laa déggee euh, kii Moussa Sow borom kii waaw ay maçon moo sant yëpp maa leen di béggee bu baax a baax képp ko xam da ngay ambila rek ma caat maa lay béggee yi maa leen di ziar bu baax a baax carreleurs yi ñuy xëy heure di wàcc bu baax a baax sàmmkat yi ci àll bi baykat yi ñiy dër xam ñi nga xam ne ñi ngi ci xur yi ñoom ñëpp maa di béggee bu baax ma caat di leen jaajëfal madame madame madame Sène madame borom orange moo ne la moom tamit muy jaante di góorgóorlu madame Sène foofu noonu baax na yow jàpp rek dina baax incha allah mais war maa ay Sias nag tamit mooy loolu noonu di ko bëggee bu baax a baax di bëggee ñi nga xamante ni nopp naa leen te xawuma leen ok oma seen numéro di bëggee ñi xam ne nopp nañ ma jot yee di bëggee ñi xam ne ñëw ñëpp la léegi saan bi ma la jox nii Lucky Dubé moom moo ko def ci ci mbëggeel waxoon naa la mbëggeel bi gi nga mbëggeel ni ma ko décortiquer yesaay ok bii nii bee wax naa nga bag sa réew bëgg bag bëgg àdduna yesaay bii nii pièce donc pour xeet yi mën a booloo beneen bi mooy loolu noonu mais bii nii moom mu ngi ci wax ni dafa bëgg da doon bëgg a takk jabar dafa takk jabar ba pare sax la sama gaan ba non dafa bëgg a takk jabar mu woo yaay ji ne ko yaay dama bëgg a takk jabar yaay ne ko mais est ce que xool nga kooku ko si yaay xam na ko et la mère quoi sama mu ngi tudd la ramos yesa maman ok léegi mu takk def mariage célébré yëpp bégee xam nga comme mooy loolu dugg ci fekk fa kaani noonu la ko gaan bi waxee quoi sëy bi mu waat yaayam ni ko yaay damaa génnaat ci sëy yi parce que ki ma doon kii quoi pour juste wax la rek wax naa l'amour c'est faux xaw ma l'amour c'est vrai mbëggeel kenn mënu ko kenn ko à peu près kenn mënu ko jàpp quoi isaay son bi loolu ma nekk histoire bi lakk dube mu def ko ci mbëggeel quoi euh, bon képp nga xam ne ne boo bëggee boo xasee ba dugg jàpp rek te yàlla tax parce tamit l'amour mooy loolu noonu quoi léegi loolu ma nekk concept san boobu noonu après xam nga na nag lakk dube wax na benn son bu am benn mot bu am important mu bépp jigéen bu rafet sama gars moom ko décortiqué ni mu ko dégg woon rek ak ni mu nekkee nekkul benn man dama yaakaaroon ne dana jigéen bu rafet bu ne ne day tax mu bëgg a ziyee ak góor yëpp mais dama non non da noonu bépp jigéen bu rafet eh, fowukaayu borom xaalis yi la parce que boo amee xaalis rek daf lay yomb pour nga mën a am jigéen bu rafet boobu noonu quoi c'est ça quoi léegi loolu moo nekk business bi quoi ci loolu noonu ci laay béggee ñëpp ñi nga ñu excursion di business caatu maag waa Ngombel waa Nafar waa Anena waa Kër Madaro Kër Magay Ndaw Cenaba Sekk Cenaba Gaar Touba Gueye Touba Tul Xombal Kër Magay Ndaw aussi maa leen di béggee bu baax a baax di béggee waa Ñaaxaar Fatick ñëpp maa leen jaajëfal waa Njaareem ok di leen béggee bu baax a baax di wax caatu maag la woon Sen 24 TV tous les jours yi da nga koy am même heure même fréquence même tactique même technique même studio aussi même boro baay boo bëggee jooy da ngay tooñ ko la mën boo bëggee xeer da ngay nëpp loolu nëbbul boo bëggee bëggee da ngay kosi ma caat ma parce bu nekkee moom la nga jox ma dernier clip boobu nga xamante ni laaxamoos yeah <laughs>